yamba teg nañ ko loxo foofee 19 mhm. euh, pilules mooy pilules yi euh, mami doon wax léegi ne moom la ñuy def moom la xale yi di defee suus mhm. teg nañu ko fa loxo euh, sachet boo xam ne dañ koy wax kunk la benn pierre benn joint de hachis noonu nag danañ koy saisir ni ko communiqué bi daal di waxee 2956 mhm. pièces afférentes de conduite des véhicules yoo tam daal nañ ko saisir 358 auto yoo xam ne daal nañ koy mettre en fourrière 221 moto yoo xam ne itam daal nañ ko immobiliser 54 accidents lañu constaté 27 euh, yoo xam ne dafa ànd ak ay blessures corporelles 25 mm. euh, yu ànd ak euh, dégâts matériels ñaari accident mortel 33 xale yoo xam ne dañoo daal di réer ñu yóbbu leen ba seen famille 12 yi mm-hmm. jot nañ leen jox seen famille yeneen 18 ñu ngi mm-hmm. ji ñu ngi seen ay loxo bi dee communiqué nag bureau de relations publiques bu police nationale moom la wax ne loolee la tënk ba loolee la liggéey ci li nga xam ne moom mooy màggal ci bàngal gi ah, ñu leen di jaajëfal Euh, ñu ngi amal liggéey bu euh, am euh, solo alors ñu daal di ñëw nag ci suivi de cas bi nga xamante ne moo ñeel le double meurtre bi nga xam ne moo am fële ci Pikine Technopole mhm. daa mel ni am na yu ci yeesandi nga ànd ceeg ñun waaw li ci euh, yeesandi mooy euh, <laughs> tey jile ginnaaw bi nga xam ne bukk lañu enquête bi foofee ci division des investigations criminelles euh, tey ñu ma leen ko waxee woon noonee nag la ñu ko nar defee mooy defeere leen jébbal leen le procureur bi nekkee foofee ca tribunal de instance bu Pikine Guédiawaye juróom-benn lañu ka nga xam ne tam dañ ko doon recherché muy Fallou Diop muy juróom-ñaareel boobee kenn tegu ko bët kenn tegu ko lal mais policiers yi jàpp nañ ne daal euh, fu mu mun ci nekk daañu ko jàpp mhm. Mamadou Lamine Diaw la woon Serigne Sarr euh, ñu koy woowee euh, Ndës Omar Gueye Assane Diaw Ousseynou Diaw ak Naboulay ñoom nag ginnaaw enquête bi nga xam ne waa DIC daat nañu koy def ba boucler ko dinañ leen jébbal waa division des investigations yaa ngi eh, wax sa morom ne ko yow laak yooyu ku ci nekk di ko eh, waxante ñuy fàtte nag ñoom ñooñee eh, li ñu leen di toppee mooy association de malfaiteurs assassinat acte de barbarie vol aggravé et complice de ses chefs muy délégation boo xam ne nag war nañu gën a approfondir li ci investigation yi ni ma leen waxee septième personne bi moom ba tey kenn gisagu ko ñu gis ne nag dig dafa wax ne daal ci investigation enquête yi nga xam ne wax na ko ñoom ñoo ñu jàpp ñëpp ku ci nekk xamante nga ak sa morom ndax ñu ngi wax ne kenn ci ñoom mus nañu ko jàpp muy Serigne Momé. Mhm. Serigne Sarr ñu identifié ko moom tamit ak ki ñu wax ne ko tàndemam la muy euh, Omar Gueye ci compte Wave yi nga xam ne tamit kenn ki mooy li ma la waxoon 5000 bu jóge ci Aziz. Mhm. ak euh, beneen 3000 francs bu jóge woon ci euh, portable bi nga xam ne mooy portable bu Wally. Mhm. ci confidence yi nga xam ne itam ñoom jot nañu ko def mami mi ngi koy wax léegi gaañu gaañ yi nga xam ne kenn am na ko ci ci xeex boobee nga xam ne doxoon na seen diggante bornage téléphone yi itam. ndax téléphone crime boobu ci euh, paramètre bi euh, gis nañu ne ci périmètre boobu foofu lañu nekkoon donc loolu itam euh, takk der yi daal dinañ koy gis kii nga xam ne itam moom mooy Nabou Leye dañu ne vers les coups de 22 heures 50 minutes dellusiwaat na ci kër gi. wala ci côté boobu parce que téléphone am foofu la foofu lañ ko localiser ci jamono jooju ndax woon nag ndax boobu meurtre bi amaat na wala déet en tout cas lu ci euh, mun ti am waxuñu ba tey na dafa bokk ci li nga xam mooy meurtre waaye enquête bi euh, foofee nag la euh, yamagum gis ne nag ginnaaw bouclage yu bi comme ni ma leen ko waxee woon tey danañ leen rek daal di yóbbu foofee ci tribunal bu Pikine ak nag benn surveillance ndax jàpp nañu ne dañuy bañ am ñu ñëw wala yenn mbir yi di am moo tax ñu daal di jël ñi nga xam mooy brigade brigade d' intervention polyvalente mhm. ñëpp gën leen a xam ci BIP ñoom ñooy amal li nga xam ne moom mooy transfert bi ndax ñooñu tam ñoo leen jële woon Touba ñi leen jàppoon andi leen fi nga xam ne euh, moom mooy euh, Dakar kon jàpp nañu ne daal ñi ñuy wax les présumés euh, meurtriers de Abdou Aziz Ba ak Boubacar Gano daal dinañ leen tegaguma loxo ginnaaw traque bi nga xam ne waa DIC daal di woon nañ ko def fàll Diop nag moom jàpp nañu ci mbir wi la bokk waaye ba tey kenn gisagu ko police mi ngi à ses trousses euh, moom ak euh, ki nga xam ne moom mooy euh, Mamadou Lamine Diawo daal dinay avoué mm-hmm. ne moom moo faat di li mu waxoon ci enquête gendarmerie bi loolee la waxaat tamit démb ci kanamu takk der bi ñu defee confrontation daal wax na ne moo faat waaye wax na itam kii mu wax ne kooku moom moo ko jox li nga xam ne moom mooy paaka bi fi mu toll nii dikk daal dina ci pare ci boobule enquête jël na dossier yépp ñu nar ko yóbbu ci tribunal bu Pikine Guédiawaye procureur nag fu mu ne euh, moom mooy xool kan la ciy téye moom mooy xool kan na ciy bàyyi waaye jàpp nañu de daal ci euh, ñenn ñi dinañu ubbi ab information judiciaire maanaam instruction. instruction d' accord jërëjëf euh, Ajaratu Ngoné Fari. Mm-hmm. yaa ngi dégg ñu ciy wax boobaak léegi un commentaire. bon man dama jàpp ni rek euh, lii li muy wane rek mooy état alarmant de la sécurité nationale fii ci Sénégal. Mhm. parce que tey bu ñu demee ba sénégalais yi. Mhm. amatuñu peut-être euh, confiance wala boog amatuñu sérénité bi ñu amoon nekk ci seen biir dëkk ça c'est un problème. te mhm. li nga xamante ni xew na mën nañ ci jàngat lu bari mais man dama jàpp ni rek d'abord il faut que sénégalais xam benn yoon benn affaire. Mhm. dañu ne ñu la ñu. on ni ñoom kii rek kii déjà a am na ci koo xam ne ci ñoom mhm. mës nañ ko jàpp pour les faits de meurtre. kon mën nañu jàpp ne c'est un récidiviste. ba pare les services de la police. xam nañu ko mhm. parce que xam képp ku jaax police képp ku ñu mës a jàpp kenn ku ñu mës a defeere bu ñu xoolee ñoom nañ xam ne kii mës na fi ñëw li lañ koy toppee mais ñoom ñu ñu ñëpp mhm. kenn ku ci euh, incriminé ki nga xam ne moom mooy Nabou Leye ñoom ci seen biir ñi ngay waxante kii naan xam na kii kii naan xam na kële am na ci koo xam ne sax mhm. ba ñu enquêté Nabou xam la ñu wax ne Nabou wax mais Nabou wax na bien que woon na pour mu wax parce que dafa doon jooy ñu ne elle était sous le Mm-hmm. dem na bay wax ne Aziz daf ko jàppee comme papaam jàppee comme xaritam ndax ñoom ñaar fi ñu aw mm-hmm. donc moom juróom-ñaari xelam xalaatul muy wax loolu loolu moom ay kàddoom la li am ak mm-hmm. lu amul yàlla rek xam ak ñi fekkee mais moom li mu wax ci kàddu yooyu lañu mun a yem mais amul kenn ci ku ñu jàpp ci ñooñu ci kili googu koo xam ne incriminé ko wala mu tudd ne euh, euh, Nabou dafa nekkoon ak ñun wala yëgoon na li xew absolument c'est bon ñu préciser d'accord donc c'était dans ce sens là daal euh, moom bu ñu xoolee ba ci biir lu weesu ni ñu xoolee téléphone am ak jiixi jaax jiixi jaax yi ci am contradiction yi lool rek peut lañ ko mën a euh, amul kenn ko léegi nag bu ñu demee ci mm-hmm. procureur bu dee kàddu yooyu doy na ko mm-hmm. wala mu xool na kii kat amul lenn lu mu taqee ci crime bi mm-hmm. dana ko bàyyi mu ñibbi. bu xoolee na xam ne dafa am leneen loo xam ne am na ci te waxuñu ko. Mhm. loolu nag procureur moo décidé mënoo nekk à sa place moom moo xam la muy décidé en tout cas lu ci mënti am. Mhm. dinañu lii ak lii euh, noonu noonu la mbir mais noonu la demee pense que je, mhm. lorsque je parlais ngi gis nit ñi ngi posté di naan xarit ak nii ay wax yoo xamante ni man dama jàpp nañ tey ci mbir mi parce que euh, li feeñagul amaana moo gën a diig sax li nga xamante ni mooy li feeñ ci histoire bi la. te mhm. kooku noonu di Fallou Fallou Diop je pense moom mi nga xam ne ñu ngi koy wër gisaguñ ko man dama jàpp ni moom mooy clé de euh, solution ci ci bi affaire parce que bu fekkee ni xam na li xew xam na ne ñu ngi koy xaar mu daal di daw. Mhm. am na lu tax mu daw. soit dafa am lu muy nëb wala boog dafa tiit. Mm-hmm. donc dès l' instant kooku ñu teg ko loxo wax loo ko dina wax loo xamante ni tey mën na indi ay solution maintenant man la nga xamante ni tey jii nii mooy taxawaay bi may xaar ci autorité sénégalaise yi mm-hmm. moo ñu xool naka la ñuy euh, defaraatee suñ système judiciaire ba li nga xam ne mooy crime mm-hmm. ñu daal di gis nga euh, pen de mort bi ñuy wax man dama jàpp ne mën na am ci homicide volontaire parce que tamit il faut savoir que ñaar moo am homicide involontaire wala volontaire volontaire mooy ki nga xam ne da nga tiim nit ba pare kaawu Aziz ñun ñëpp xam nañ euh, dégg nañ en tout cas li nga xam ne mooy aveux yi ñu génnee. Mm-hmm, mm-hmm. ñëw nga ci nit ki di ko soxla xaalis pour mu jàppale la mu ne la mënu ma la jàppale nga yëkkati paaka jam ko. au mm-hmm. nom de quoi. léegi après kooku la ñuy tëj benn deux ans. mais est-ce buñ ci soxla est noonu la demee. non loolu xam nga nit déet ay kaay ma wax la. dafa am tey bu la jàppee. am na enquête préliminaire. tey mën nga ñëw wax lii. suba mu amaat contradiction nga wax lii xam nga tey toog ne damaa dem seeti na bu ñaan ko xaalis mu bañ ma jam ko ça pas dire que moo am mhm. mun nga wax loolu pour se dédouaner mhm. mais li am après peut-être que les mhm. éléments de l'enquête ñoom ñoo koy définir te fi ma dàqu ak yow lii man jàpp ma ne dafa bokk ci wàllum sécurité ndax xewul ci mbedd comme mhm. par exemple ku ñu doon agressé police nekk fa xewul yow nga dem sa biir kër lañ la fekk mosoo gis benn policier bu ñëw ci biir kër jàmbur fekk jéyi amu fa moo ko ci àddina moo ko ci àddina mais en fait foofu foofu laay waxee parce que tey moom moo taxaw ne man maa rey mhm. lii moo am donc de l'instant que mu wax loolu ñun loolu ñu mën a jàpp ba ñuy tegaat leneen suñu loxo maintenant enquête bi nag mooy décider ci li nga mhm. xamante ni moo am exactement mhm. Mhm. mais ba fi ñu toll nii nii nii nii nii benn kàddu la ñu am de officielle moom moo avoué ne il a li tax mu rey loolu la maintenant bu ñu demee nag ba enquête bi sotti ba ñu am kii moo rey. Mhm. kii moo def lii kii moo def lii kii moo innocent kii mooy ki nga xam ne mooy kii. boobaa nag yoon dafa war a appliqué wu. Mhm. te na mu war a appliqué wu keroog Thiès gis nañu kenn koo xamante ni liberté provisoire euh, liberté conditionnelle la nekkoon. Mhm. ñu takkal ko bracelet dafa dem am ku fa rey. waa Thiès bu ñu ko jàppee dañ ko rey taal ko mooy histoire waajoo ñu reyoon taal fi may waxee foofu rek. mooy tey fragilité judiciaire bi nga xam ne am na fii ci Sénégal. maanaam ces meurtriers là ñi nga xamante ni leer nañu ne ñii ay reykat lañu. war nañu xool naka lañ leen di tënkee. Mhm. naka lañ leen di téye ba boobu bu ñu non seulement du ñu génnaat ci kaso bi. Mhm. mais aussi du ñu defaat les mêmes choses parce que tant que ñoom ñu ngi nekk dans en circulation ci biir dëkk bi y a danger. parce que nit ku xës ba rey nga tëj ko mu génn. bu gisul lu mu def mën na dem euh, sóobuwaat ci li mel. te mhm. loolu ay risque la yoo xamante ni man dama jàpp ni Sénégal war na mën a weesu loolu. Mhm. peine de mort nag dëgg la diis na lool ci dégg-dégg ñu bëri dañuy naan non peine de mort nii mais charia ci boppam moo taxaw wax ko te ñu yaakaar naa ne Sénégal dëkku dëkku dëkku dëkku. dëkku diine la dëkku mhm. diine la. tey laïc la dafa ay chrétien ay absolument foofu laay waxee dafa dëkku diine la genre majoritairement nous sommes musulmans mais teew les chrétiens sont là. mais dama jàpp ni la logique des choses voudrait que man nit koo xamante ni sciemment par froideur jàkkaarloo nga ak nit rey ko te yow tu assumes que ni effectivement rey nga nit kooku. Mhm. mais tey bu ñu appliquer charia ci sa kaw. il mhm. y de problème. donc li ñu war a def rek mooy xool naka la ñuy fexe. tënk yooyu la personne yi nga xamante ni ay danger ambulant lañu. Mhm. wa ilaa ñu tëj leen à si ay conditions yoo xamante ni du ñu mën a génn fa ñu nekk. wa illaa peine de mort ñu appliqué ko rek man dama jàpp c'est la seule solution mais tant que ñu ngi bàyyi bayal di bàyyi koo xam ne rey na nit. Mhm. deux ans trois ans ñu libéré la mais tamit bakkan dafa fort. dafa fort mi ñu rey mii dafa amoon une famille. Mhm. il avait une maman ak yeneen ak yeneen yoo topp si ginnaawam. Mhm. xale bi nga xamante ni boole nañ ko si lu ko si si kër gi la nekkoon fekk nañ ko fa bañ nañ mu génn wax tax na ñu rey ko. après un avenir qui est là boo xamante ni yàq nañ ko. te muy Aziz muy keneen ak keneen ak keneen man nee naa sax peut li tax ñuy attardé wu ci lii c'est parce que Aziz dañ ko xam mais chaque jour nga dégg fi jéeya. Mm-hmm. chaque jour nga dégg fi meurtre chaque jour nga dégg fi leneen ak leneen loo xamante ni ça mérite d'être médiatisé ça mérite de de la une des journaux mais mm-hmm. on fait pas. donc nag on profite de cette occasion là pour régler un problème boo xamante ni Sénégal bi ñu bëgg a dem jubal jubbanti bi gis nga jubbanti boobu képp koo xam ne da nga dëng nañ la jubbanti jubbanti bi nag mooy lan rey nga ko warta rey wala boog rey nga ci loo xamante ni anam yoo xamante ni teguwul ci yoon mais nañu xool naka la ñuy régler euh, daan bi war a tegu sa kaw ñu teg après après après mu jeex quoi mhm, na solo mami un commentaire <laughs> ce problème de traumatisme mais bon oui doy na waar oui mais après euh, en fait ce, ce que dit Fary là où je suis d'accord avec lui mooy ne euh, euh, gis nga pour man mhm. y a qu'un seul moyen euh, yenn taux de criminalité mu wàññeeku mooy il faut corser les peines mhm. Mhm. parce que souvent on voit ay nit ñoo xamante ne dañuy commettre yenn crimes yi bu dugg kaso génnaat alors est-ce qu'il faut pas soit en tout cas si c'est pas revoir la peine de mort au moins perpète nga xam ne Euh, parce que bakken doomu aadama moo foor nga rey ko de sang-froid dara jotu la mhm. amoo kayitu dof euh, nit koy fréquenté wu soit koo xamante wala koo xamantewul sax. bon kaawu Aziz bi li ci métti mooy le fekk ñoom ñëpp ñoom.